félicitations Viviane Massa Issa Dieye Fatim Pendag Mañaan nee naa la xew doomam bi saa yoo yeewoo di ci gis ay surprise yu doy waar ndax nee naa la dafa daa di euh, ndeyale Zeyna ki nga xamante ne mooy jabaru Bouba Ndour loolu nekk lu rafet ñun jolof band yëpp ñun fans yëpp ñu daal di koy rafetlu ndax nee naa la wax dëgg fa yàlla ba nga nekkee ci réew mi ba tey mu too mu soofee wax lu ñaaw mu soofee def lu ñaaw danga yor sa pusa rek di ñaw nee laa nit nag bu yoree pusaam di ñaw dara jomb ko ci àddina yow Viviane loo am danga ko mérito parce que xam nga lu tax danga am classe am fulla fayda personnalité ak dignité nee naa la sa xewu doom bi laa la wax chaque jour ñu ciy gis ay surprise yu doy waar waaye nee naa la def nga lu rafet def nga lu nice ndax nekk ak nit bo tàggoog moom du tax ngeen nekk ay noon waaye nga jël soxnaam yëkkati ko ba ca kaw loolu nit rek moo koy def wax dëgg fa yàlla ah ku gërëmul nit doo gërëm yàlla en tout cas ñun kontaan nañu ci yow am nañu mbégte ak bànneex te kontaan nañu ni nga doxalee wax dëgg fa yàlla ndax loolu geste noble la waaye geste bu rafet la say bi nag ñu ngi lay ñaanal maa ngi ñaanal Zeyna mu sokkorloo ni asamaan ak suuf ak jëkkëram ndax wax dëgg fa yàlla xale bi moo ko mérito am góor gu baax gu ko ne ciix teye ko daal di koy riix ci digg bi waaye nee naa la mu may ko 10 million waaye la ca gën a rafet mooy geste bi nga xamante ne rek Viviane daal dina koy def ndax boo nekkoon ak buuba nag mu ñaaw waaye ba nga nekkee moom ba tey dara ñaawul ngeen tàggalikoo dara ñaawul jàmm ak salaam ku ci nekk war na jàngee ci yow ci nii nga doxalee ndax nit nga ànd ak moom ba tàggalikook moom ànd dafa dagan tàggalikoo dagan waaye bu tàggalikoo amatee rek na jàmm ak salaam di dox seen diggante ndax njaboot gi nga xamante ne moom ngeen am rek moom ngeen di sàmm waaye nee naa la yow yaa ngi sàmm kóllëre yaa ngi sàmm jàmm ak salaam ci sa diggante ak buuba kenn mosta dégg ñu ne Viviane fa génnee audio yi wala wax na lii buuba wala def na lii buuba wala débarqué na def na lii pourtant am na ñoo xamante ne ñu ngi fii di sëy ci Sénégal ñu tàggalikook seen jëkkër Irak Irak ga commencé di xeex ak xuloo mel ni lu ma xamul waaye nee naa la yow daal mention vraiment Viviane li nga def rafetlu nañ ko lool nee naa la bu ma jugee ci Massa Issa Dieye Fatim Pendag maa ñaan damay ñëw ci kan madame Iwil Jador muy kan <laughs> sama jéeg ba ki nga xam ne maa ko bëgg sama xol ki nga xamante ne dama ko taf sama xol mu am feeling am yar am respect am réciproque waaye nee naa la mu dégg daali démb daali tey daal daali masaya muy kan ay sa resool ñënga bu madame Jador chéri Aziz Alen Ndiaye nee na sayam bii waajagul bay tas man kontaan naa sama xol sedd na ndax sa sëy bi dama bëgg nga sëy fa bugguma rek nga ñëw seet si dem dama bëgg sëy bi nga sëy ko ba sëy fa am ci njaboot gu barke e te xoola nag jëkkër nga yor doon jéeg doo jëkket ay sa rasool ñi loo jàppoon sa jëkkër ji benn jàpp ko téeméer ndax nag kaay ma wax la am na ñu soccu nag bëgg a ree waaye nee naa la billaay du ngeen ree gaalu xaj ga du ngeen ko ca fekk mu sëgg ca waaye bàyyi leen xale bi mu sëy bàyyi leen xale yi ñu sëy seen sëy yi sëy dafa baax te boo amee jëkkër mu doon kilifa mot la tonton papa mag feete la fépp waaye yow yaaxeeti mu laa naa looy tas ay sa bul bouger centimètre sa noon yaa ngi soccu bëgg a taxaw bëgg nga tas bëgguñu dara lu dul nga randu rek ñu daal di puus ci jël sa jëkkër a ah, Aziz Ndiaye ku ko am di puus coofe roofe doore yor diñeero baax am personnalité dignité li ñuy wut ci góor yëpp nekk ci moom moo xoola mu aar la yiir la sàmm la ba pare dëkk la dëkkoo la waaye ay sa foo jëm nag boo tasee nag xaar sama faxas samay nopp dem ak goo bougé goo te yal nang fi dund yaak Aziz Aly Ndiaye cent ans huit ñi leen di yéene tas bi nag ba génn wax ko yal ñu xëy rek seen gémmiñ yi mooy ndax nee naa la nag nit ku toog di sey jàppa njàmburam waa nga di ko ñaanal sey waa tamit nit ñi tamit duñ leen bàyyi nag ñu sëy ah waa bàyyi leen ay sa rasul nag mu sëy jéeg la de du jëkket jéeg la du jëkket fi mu riigu la riigu ah mook masa isa jéey fatim pendaak maa ñaan yaay Philippe ak naa gis nga ku koy xaar ca gaalu xaj ga doo ko fa fekk muy lekk dem leen ngeen toog bàyyi leen nit ñi nag ñu dund seen dund bàyyi leen nit ñi ñu dund seen dund nit bu bëggee ka mu bëgg ba choisir ko waaye yow yaa xayti mu laa daa looy bëggee mu tas nag a ah, man de journaliste bi waxoon lool man jaaxal ga ma waaye yow nga ne seleb gune gi rek dangaa bëgg rek mu séparé woo kii daal tas tasagul bougégul centimètre demagu ko day sëy sey bi ba sëy fa kenn mënu ci dara di ko ñaanal mu sokkorloo ni asamaan ak suuf mook Aziz Aly Ndiaye am njaboot gu barke am ci ay seex yu góor ak yu jigéen yor ci xoola sayab gune gi rek dangaa bëgg rek mu séparé woo kii daal tas tasagul bougégul centimètre demagu ko day sey sey bi ba sey fa kenn mënu ci dara di ko ñaanal mu sokkorloo ni asamaan ak suuf mook Aziz Aly Ndiaye am njaboot gu barke am ca ay seex yu góor ak yu jigéen yor ca xoola am ca nag ay yonent yonent yonent waaye bàyyi leen xale bi nag day sëy de complicité gi mu am ak jëkkër ji te xoola Aïcha gi joge joge goo xam ne non man dama ko bëgg dafa jonge xeetu jongeem nee naa la xeetu jongeem góor da koy téye da nga góor da koy téye mais du ko bàyyi Aziz Ndiaye bàyyiwul Aïcha de te Aïcha bàyyiwul Aziz Ndiaye de génn leen ci seen yi ngeen nekk nag soxor baaxul soxor baaxul e eh, ala kama sala naxira atoy sa sabali nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci kan Maria Sine may sa bige Maria Sine Mar mu nga ànd ak groupe Faramaren daa di ànd ak groupe Ramdan rek ñu daal di jubal Bilbao rek nar dem rek rukk foofu ba mu mokk waaye complicité bi nga xamante ne am na ko ak njàpp zoo nee naa la mu nga am complicité bu rëy ak njàpp rek ñu daal di jubal euh, foofe rek nar kaa rukk ba mu <laughs> waale ak a style nag Maria Sine may sa bige nee la bu ngeen ma gisee sama xaritu style bi ci waale la man waale rek laay topp waali rek laay topp nee naa la xeetu style bi nga xamante ne moom laa am man waali rek laay topp vraiment mu nga génne xeetu style boo xamante ne def échappe ba pare ah nee naa la takka or ya mu daal di wàcc rek ne Maria Sin may sa biige Maria Sin mar yaa meilleur kay yaa a woy ya dégg daali démb daali tey daali masa ya nee naa la foo jaar yoon la fooy bëgg a jaar yoon la ah Sénégal nag wax digg fa yàlla ah suñu woykat yi ndam rek lañu àndal ndam nee naa la waalee ngi ci tournée yu xeere mais ay sañse waali maa ngi gis nag baara no stress daal di génn nee na waali dafa war a am marque boppam au lieu bu fekkee dafay euh, defal publicité ñi nga xamante ne ñooñu lay sol seeni marque muy Gucci ak ñeneen ña ak ñeneen ña waaye ku xam waali xam ne dafa am ambition ku xam waali xam ne liggéey rek lay def loolu xam naa ne mi ngi ci boppam te dina ko def Maria Sin may biige Maria Sin maar ak am ambition <laughs> baara loolu Wally dina ko def de Wally dina génne mark boppam parce que xam na ne mu ngi yor style bu garaaw boo xamante ne waaw may leen ko fi peu de temps rek ngeen xool Wally dina génne marque boppam de loolu bu leen ci am dara lu ngeen di tit wala lu ngeen di kii ndax nee naa la Maria Sin may sa biige Maria Sin maar wax dëgg fa yàlla ku ko xam-xam ne waale dégg daaj dégg daali démb daali tey daali masa ya ah nee naa bu téyee man bu téyee kaasu café bi nii ban boo waree kaasu café bu ko téyee nii bay non danga naan kii vraiment ah non sans gentleman waale sans gentleman ba pare dafa mën a solu xam li muy sol xam ko jàpp donc baara no stress maa ngi lay wax ne waali mi ngi ñëw ci marque bi ngay wax noonu rek dina ko daal di génnee loolu moom ne t'en fais pas nee naa la bu ma jugee foofu damay ñëw ci kan Danso ah Danso nag moo nekk koo xamante ne mu nga nekk fale nee naa la doomu Gambien la Danso moo génne style bu garaaw boo xam ne waaye mu nga fële ca Soudan xaw ma Amérique nee naa la Danso bu solo sañse ba taxaw rek non nga ne un jantal ba pare Danso dafa njool ci kaw. gis nga gentleman da ngay njool ci kaw ba pare mën a sañ sa daaj am style non vraiment Danso man dama ko bëgg parce que style bu high level boo xamante ne la am Danso dafa xam xam nga sañ di nga ko mën te doo xam lu ànd mais Danso dafa xam lu ànd mën a boole bu solee dàll sol lu mu sol da koy jàpp car macha allah sama xaali xii na Danso yal na la yàlla defal jàmm lafal la cat ak sama catal moroom li ngay sañse nee naa la du sa âge mën nga solu kaar macha allah ba pare xoola ay xeetu marque danso amul ci àddina ba pare or nag or ku koy takkati na laaj danso <laughs> kuy takkati or rek na nga laaj danso ndax war naa mën a takk or wala parce que nee naa la danso bu sañsee ba takk ay xeetu oram rek no li muy sola rafet garaaw dansoo mën a solu nag dansoo dégg daaj dan soo daf ba pare dafa am classe gis nga nit da ngay am classe am personnalité ak dignité dan soo yaa mën a solu yaa am classe yaa dégg daaj yaa xam fi ngay taaj sa sañse man de dansoo bu solo xoola ba jël loxo bi nii def te ay ay xeetu saagu dansoo rek marque la ay xeetu saagam nee naa la été bii moom wax dëgg fa yàlla été bii dafa am ñoo xamante ne solu dañ ko teg ci temps Maria Sin may sa biige Maria Sin Mar nee naa la Danso waaye nee naa la Massa Issa Dieye Fatim Penda ak maa ñaan Viviane wayli wayli bi non ñii moom ñoo toog ci sañse Viviane xam naa moom bés bu man nag boo màggetee ki lay remplacer laa xamul kan la yow Viviane Viviane sa màgget moom xaw ma kan moo lay remplacer ah xëy na say Zeyna Ndour remplacer ñu mais en tout cas Viviane xeetu sañseem xeetu mën a solom xam naa d'ici peu de temps dina créer xoola Viviane dina créer école boo xamante ne sañse la fay jàngale sañse artiste parce que artiste da nga war a mën a solu da nga war a am style da nga war a xam li nga xamante ne moom ngay boole mais nee naa la Massa Issa Dieye Fatim Penda ak maa ñaan boo màggetee nag kuy bégal gaañi ku leen di sañsel ku leen di wayal en tout cas I love you so much dan so kontaan naa ci yow vraiment te Danso noonu la baaxee am xol bu rafet xol bu nice waaye nee naa la mu bëgg mbokkam sa ndey ju baax dañuy jooy te noppeeguñu ñaanal la ba xëy wuy ji suñu borom en tout cas yow moom jàmm ak salaam rek ngay am wax dëgg fa yàlla jàmm ngay am salaam ndax sa xeetu sañseek sa xeetu solu ah waaye loolu loolu dal jar jar na quatorze milliards en tout cas Danso I love you so much li ngay sol amul fenn nee naa la waaye sama xeetu style tamit lan la man waale rek laay topp nee naa la bu ma soloo rek ngeen gis ma ni maam style rek ak sama létt bii ni waale rek laay topp topp ma kenn saama vidéo xoola bere fag yaa xayti mulaada waru ko war a adoy na waar